doon laajte faali ngi sëriñ Saliou Mbakke sëtug sëriñ Sidi Muxtaar bi waaye sëtug Cheikh Mouhamad Lamine Baara bi sëtu sëriñ Tuubaa bu tedd bi mi ngi nii ngeen jàkkaarloog moom mu téye ñaan yàlla jamono ji ci loxoom jërë ngeen jëf mbokki internet Allô senegal li tax ngeen yéex koo gis ci semaine bi ndax daan naa faral di def semaine bu ne mu bëgg mu baaxe jaam yi ma génne ko ngir mu am lu mu lu mu digtal jaami yàlla ci ñaan yàlla waaye tamit ci ay secret waaye ci actualité boobu ba léegi ñu ngi ko ciy topp li tax nag tey ngeen yéex koo gis ci semaine bi mooy boobu ba léegi maa ngi ko bëggoon a génne mu tëju woon nee na ma Lamine man maay bindal sama bopp nekkoon ci kayit yi ngeen di gis ma ko doon bind jëmul ci lu dul ubbeeku jëmul ci lu dul xaalis waaye jëmul ci lu dul kaaraange mun ma maay bindal sama bopp te fii ak parewu ma du ma mën a génn looloo tax semaine bi ngeen ko yéex koo gis tey nag ma ñëw fekk muy doog a pare ci sunguf yi nga xamante ni mi ngi koy liggéey moo tax ngeen baal ma dina mel ni lu xaw a soj ndax sunguf yi mu jaxase moo bari sunguf yi mu boole moo efficace baax ci nit baax ci ubbi nit baax ci xaalis baax ci kaaraange waaye tamit baax ci koo xamante ni dafa tëw a am doom tey émission bi 100 pour cent baaxee lay doon ndax 100 pour cent secret lay doon dina may ay secret tey dina maye ay yoo xamante ni dina jëriñ jaami waaye dinañ waxtaan ci actualité comme ni mu ko daan defee moom Serigne Saliou Mbacké dinañ waxtaan ak moom njëkkee ko ci Ousmane Sonko aji Sarr am na lu mu ci waxoon sénégalais ba léegi ñu ngi koy challenge ndax li mu leen wax dafa dawoon seen yaram ñu teg ci seen bët ñëw balaa le 23 faw mu génn génnaat du ñàkk ñu wax ci problème mu Adamo Ndeye Ndack coow laa ngi tàmbalee bari du ñàkk itam ñu wax ci coowal Ziguinchor bi ndax saltige yi génn nañu ñu ngi menacé suñu njiitu réew mi ba ci sax ki nga xamante ni mooy la général Moussa Fall.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 ñu génn fa te bu ñu fa delluwaat di ñaan yàlla itam ñu tëdd ci lalu hôpital yi suñ borom fëgg seen bopp bañ dellu seen njaboot ak képp koo xam ne yaa ngi xëy coonay Sénégal dal sa kaw ñu ngi lay ñaanal suñu borom génn la si loola. jërëjëf Mbacke la dan naa faral di tàmbalee waxtaan bi seet waaye seet dem na ba réew mi kenn doolat dootu la ci laaj ndax def nga ci say preuve waneet nga ko waneeti nga ko ba dem ba koy jàngale ak direct ci tele yi may njëkkee mooy ci fas gi ndax néew kàttan sonal na nit ñi nga génn ci fas doyatul nga génn ci sax sunguf soo xamante ni laal wér la tudd. waaw xam nga Lamine néew kàttan dafa nekk loo xam ne jamono jii ñu ñuy wax ak yéen lu sonal doomu adama yi la. Mm-hmm. ndax lekk yu bon yi ñuy lekk yooyu. Mm-hmm. moo tax eh, chaque jour dañuy gëstu di gën a jàng di gën a xam di gën a am ay tegtal di gën a am tamit ay résultats si li ñuy liggéey. Mm-hmm. ndax euh, doo ne mën naa rek daal di yem sa la nga man moo tax lii nii moom ñëpp xamee nañ ñu ko. mooy fas fas gi moom ñëpp xamee nañ ñu ko. parce que si li si li nga xam ne moom la fas gi dox comme nañ ko daan waxee mooy képp koo xam ne saw awra day dellu wala saw awra di yéex a jóg wala bu jógee ba nga am yaakaar mu delluwaat wala boo dee sëy ak sa soxna da gaaw àgg yu demee nikki ki noonu ak lépp luy feebaru ndigg yu demee nit ki noonu la fas gi di faj. Mm-hmm. fas gi nag la ma yàgg a wax rek ndax si lañ bëri na ñu ñu si tuddee doom bëri na ñu si defal lu bëree bare bëri. Mhm. te am nañ si am nañ si lu ne. kon moo tax daanaka duñ ko fàtte. waaye nag bi ñu paree si fas gi fas gi am am solo dañu indiwaat euh, beneen. dem gëstuwaat indi lu gën a yaatu. beneen produit boo xam ne euh, nekk ay sunguf lañ koy defaree. Mhm. mooy gàncax yi nga xam ne si àll bi lay nekk. moom la ñu boole defar ko ba mu nekk sunguf sunguf gi nag sungufu kàttan la. Mhm. képp koo xam ne suñu borom dogal na ba nga am ci. wallaahi doo doo doo gëj di ñëw. wallaahi par ndax euh, am nañ si ay ay ay résultats yu wóor yu wóor a wóor a wóor kum neex sax ñu jox la nga isin ba noppi doo ko doo ko jëflanteeg ñun. Mm-hmm. mën nañ takk rek nga isin ba noppi lépp lu ñu jëflantee nga ñu jóg nga ko ñëw ñu jëflante ñoo jëflante ko. ndax maanaam nit ki waroo xam waroo yam si la nga xam rek. Mm-hmm. ndax ñun ñu bëree bëri fi ñu fi ñu rawee dëkk yu bëree bëri fi ñu rawee mooy Sénégal lay xam dara rek téef téefa te bu dee yeneen dëkk dañuy heure luñ xas ba xam fàtt nañ ko ñu ngi jàll si leneen mm-hmm. ñun nag dañoo war a am gis-gis boobu ak yëgin boobu ak tegtal yooyu di ko jëfee ndax ndax suñu dëkk bi mën a avancé ñu nag si lañ nekk ba lépp luñ xam ba gëstu ko ba mu ba indi ñu résultat rek dañuy bàyyi loolu dem si leneen mm-hmm. lii nag tey moom lañ moom lañ indi si bokk na si produit yi nga xam ne yu bees yu bees la si mbirum kàttan lay la lay lay dox waaye sëñ bi dama laa fekk ngay liggéeyal sa bopp wàllu sunguf nga ni sunguf si loo ci liggéey du doy ndax résultat yi bari na te wax dëgg yàlla bëgg nga ku ñëw ci yow Mbàkke Bàlla mu am résultat nga indi sunguf soo xamante ni bi ma ciy njëkkee mooy bi nga xamante ni day nekk day liggéey ci wàllu jigéen ñi nga xamante ni mënuñoo am doom wala dañoo dañoo am doom ba pare takk. waaw xam nga dafa am lu bare yu bare bare yoo yoo nga xam ne moo tax jigéen di taxaw du am doom. Mm-hmm. mooy lu demee ne ak yeneen feebar yu demee yu demee demee nekki noona ak jigéen koo xam ne graisse gi dafa bëri si biir bi. ak yeneen ak yoo xam ne mooy tee jigéen am doom euh, suñu borom dafa am nu mu sàkkee biiru jigéen. Mm-hmm. lenn lu fa fa doom war a nekk lenn lu fa nekk lu doom rek doom du fa am. waaw loolu nag day baax nit ñu baree bari xam ko. Mm-hmm. léegi dafa am ñi nga xam ne dañoo am ay feebar seen biir sunguf sii lañ leen jox sunguf sii sunguf si bu ñu la ko joxee. Mm-hmm. boo ko jëfandikoo balaa mat euh, ñetti weer bu dee jotee nga ak sa borom kër suñu borom dina def bu neexee yàlla suñu borom def nga am nga am tu tànk. amul sax ñu naan la tey suba wala dara bu ñu ko joxee boo joxee bu dee suñu borom suñ borom dogal na sa borom kër mën naa am mën naa am mën am doom mm-hmm. yow jigéen nga yow rek yaa taxawoon buñ la ko joxee yàlla xam na ne balaa mat ñetti weer wala ñeenti weer di nga di nga di nga jàpp di yàlla te moom mi tamit wax dëgg yàlla eh, def nañ ko ay yoon yoon yoon gis si ay résultats yu wóor wóor a wóor mm-hmm. eh, ñu baree bari sant ñu si ndax ñun bépp produit bu ñu rek bala ñu ko jox doomu aadama dañuy dañuy bàyyi ba mu wóor nañu lii baax na lii tege na si yoon ñu doog koo génnee waaw. am na sunguf su fi nekkoon soo xamante ni heure ma ñëwee dama ko fi fekk nga ciy liggéey itam ci wàllum euh, hémorroïde ci wàllum ndoxum siti ci wàllum leneen leneen dem na ba réew mi sax xamee nañ la ko simila ak saala nga koy faj léegi. waaw mi ngi nii xam nga léeg ñëpp xamee nag doo ko bàyyi. ndax euh, sunguf si lii nii ngay gis nii mooy li ma yàgg wax dem naa sax bu mu yàgg daw dama ne du ma ko joxee ma waaye mënut a ñàkk daal. Mm-hmm. mooy sunguf si nga xam ne. si wàllu hémorroïde lay dox ak euh, ndoxum cité gi demee ni ki lii moom yaakaar naa sénégalais yëpp xam nañ ko te képp koo xam ne suñ borom dogal na jëfa jëfa jëfatin jëf jëf na si loola mhm. di nga bi sa garab gi baax na yàlla xam na ne mosuñu ko jox kenn kenn kenn te gis résultat mhm. waaw te la ma yàgg a wax rek ñett nit buñ bokk buñ bokkul bu ñëwee ne ma sëñ bi li nga waxoon gisuñu résultat ma bàyyi mhm. waaw ndax ñun li ñu faj résultat lañu si bëgg 100 pour cent nag suñu borom rek ko am ñun nag wax dëgg yàlla duñu ne 100 pour cent la mhm. waaye nag même bu doon 99 virgule 99 pour cent sax suñu borom may nañu may may nañu loola kon loolu lañ koy sante baax a baax mhm. di ko gën a ñaan mu gën ñoo suturaal mhm. gën ñoo jàppale ba liñ jublu si faj jaam yi suñu borom may ñu loola sëñ bi dafa am loo xamante ni dafa nekk phénomène ci réew mi muy ñoo xamante ni dañoo tëju umu cat jàpp leen rab wala sax liggéey jàpp leen nga ni lu mu mënti doon bu dikkee fii sa cangat gi nga yor ci wàllu ubbeeku loo umu umu loo tëju tëju da ubbi nga boole kook si ay sungufa waaw cangat yi ñu yor si wàllu ubbeeku dafa dafa bari ndax uh, ubbeeku nit ki loo mënti liggéey ak loo mënti def boo ubbeekul doo dara doo ah. defoo dara càngat gi lii nii uh, fatiha la mhm. boo xam ne dafa ànd ay wala yaxsifakum naas ay ay yeneen yu baree bari mhm. ndax uh, ñenn ñi daay bañ ñu xam ñu yooyu mhm. moom mi ubbeeku gu doy waar la ah, ubbeeku doy doy doy doy doy waar la ah. dafa am lu ñuy lu ñu koy boolee rek bu ñu la ko joxee nga sangoo ko. waaw incha allahu rabbi balaa am weeru néew suñ borom dina dina dégg fu kawe kawe kawe. waaw moom moom mi ngi nii. lépp lu lépp lépp lu tàmbali nag bis faatee mooy jiitu. waaw mooy jiitu bañ na ko ba waxtu yu juróom boo ko di julli sax faatee mënu saa génn. Mm-hmm. kon moom la ñuy tàmbalee ci wàllum ubbeeku ji. pour mm-hmm. gën koo leer nit ñi. Mm-hmm. te képp koo xam ne suñu borom dogal na ne jëflante nañ si si moom mii. di nga xam ne li nga li ñu jëflante si ubbeeku gi. mosoo ko jëflante ak duñ ko faral di jox nag ñëpp. Mm. ndax wala ñu ko jox kenn dañ lay seetal xool say mbir ba noppi dog la ko doog la ko mën a jox. Mm. waaw mooy fatiha bi. bi waaye am na beneen boo xamante ne ci wàllum ubbeeku lay dox yaakaar naa booboo gën a gudd ndax moom moom mooy basang gi nga xamante ni moo ñu teree woon def émission fa nii yëpp ndax ci nga nekkoon. Mm-hmm. waaw bii basang gi moom néew na luñ koy joxe ndax euh, weer wu nekk. ñaar ba ñett nit lañ koy jox waaw mi ngi nii sax du bii bii la mu ngi nii moom mii ah, waaye lu baax lu baax faaw nga sonn si lu baax faaw nga sonn si bii nii suñ borom dafa dogal ne eh, wàqixa la wàqixa bi lu waaw wàqixa ba mu jeex dañ koo liggéey lu baree baree bari turu yàlla yu bari mi ngi si ñu def si lu baree bari bari eh, kii nii képp koo xam ne bëgg ngaa falu fa nga nekk. Mhm. wala ngay xëccoo dara mënoo saa jot. wala nga bëgg a nekk kilifa gu mag a mag. wala nga bëgg a nekk millionaire wala milliardaire incha allah rabbi boo jëlee bi suñu borom dina la defal tawfiix si la ngay liggéey. te boo ko buñ la ko sangee buñ la ko sangat sangat gi buñ la ko joxee yàlla xam na ne balaa mat weeru néew dana la dégg fu fu kawe. Mhm. ndax sangat gu am gu ànd ak bayra bu doy waar doy waar la. Mhm. lu doy waar doy waar moo tax daal sung beneen sunguf lañ koy booleel sunguf si mi ngi si biir moom lañ koy booleel moom mi nga sangoo ko ak xaalis ak sungufus xaalis ak or nga sangoo ko moom mi mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu nekk si biir mm-hmm. waaye bu ñu la ko joxee suñ bu ñu la ko joxee nga sangoo ko di nga gis ubbeeku goo xam ne mosoo koo gis ba nga juddoo ba léegi ci yow te lépp loo xam ne def nañ ko si yow suñu borom dina ko saafara mm-hmm. mooy sóoti wàqxa bi yaakaar naa lu waaye ñàkk ñàkk xam dégg dégg dégg xam nga ne wàq xam ubbeeku la ak wërsëg la waaw waaye Mbacke Balla fi mu bëgg a jàll ñu doog a dem ci actualité mooy ndomba gi la ñëpp xamee wala dangay ñëwaat ci ubbeeku ba léegi sëñ bi daa mel da ngaa bëgg pauvreté génn ci dëkk bi. xam nga léeg-léeg ñun li ñu war mooy ñëpp am. moo tax ubbeeku duñ si kii bii nii yaasin la yaasin gi dafa ànd ak kaaraange gu baax gu wér a wér. ak ubbeeku la moom tamit ak képp koo xam ne euh, ñi ngi lay néewal doole wala nga ñàkk xorom ñu demee ni ki noona moom tamit dafa am lu ñu koy booleel jox la nga jëfandikoo ko. boo ko laalee ñëpp. waaw boo ko laalee saf ñëpp moom bayra bu doy waar la xam naa nag ñi ñi nga xam ne ñooy nekk si bagage yeeg yooyu. ñoom moom laa ko yéene pour ñu jël loola ndax. Ah, xam naa ne moom seeni mbir la te bu ñu ko jëfandikoo dana xam ne. jëfandikoo nañ loo xam ne moom tamit ah, wax dëgg yàlla am solo la. waaye sëñ bi ndomba gi la ñëpp xamee dem ba nit ñi doon ko trafiqué nga arrêté woon koo joxe arrêté woon cee wax te xëy na man rek nga permettre wax ci ndomba gi dama ko gisul nag tey looloo tax moom ak tawfiix gi. dama koo fàtte si euh, bagage yi ndax bagage yi moo bari lool waaye ndomba gi moom euh, duñ ko sàgganee. Mm-hmm. ndax euh, nit ku nekk boo da nga am adresse te ñun yaakaar naa ndomba gi mooy suñu adresse ndomba gi nag ndomba juróom-ñaari gaw la ndomba gi ndomba juróom-ñaari gaw la gaw bu si nekk day am lu ñu koy booleel. Mm-hmm. buñ la ko dee jox dañ lay seetal ba noppi ndomba gi si li muy dox mooy képp koo xam ne dañ lay néewal doole fa nga nekk wala ñu lay bundu xatal wala ngay xëccoo wala ngay xëccoo ak dara ak yoon. incha allah rabbi bu suñu borom dogalee nga nga jot si ndomba gi suñu borom dina def tawféex lépp loo yot di ko jot mhm. ndax ndomba gi dafa ànd ak tul tul fital tul paaka te képp koo xam ne tamit eh, jox nañ la ko bu neex nga taxaw ñu iseen la iseen la ko mhm. ndax eh, yor nañ yor yor nañ ñu koy iseen wee mhm. te yaakaar naa bu ñu nee ba génn dakaar bu la neexee ñu iseen ko te la ma waxoon rek eh, ñi nga xam ne ñoo yor suñu armée bi nañ ñu seet si ñu garanti leen ndomba gi tul tulu fital gi mën nañoo dem sax ñu yóbbu ñu ba si àll bi ñu jox ñu isin lépp loo xam ne def na ko su noonu ñun ñoo jël garante bi te bu ñu fay dara. Mhm. li tax ñu def ko nag mooy dañoo bokk ci réew mi te tamit nekk ay kilifa te tamit nit ku nekk danga ngaa war a eh, am pas-pas lay doxal sam réew nga nga teg sa loola. ndax maanaam nit ki amul lu dul pas-pas te bu ñëpp man koo am pas-pas réew mi dina dina tege ci yoon. Mhm. ndeysaan Mbacke Balla lii moo tax réew mi naw ko. lii moo tax réew mi bëgg ko waaye lii moo tax ñuy bëgg à chaque muy génn heure bu génnee joxe njariñ heure bu génnee wax loo xamante ni réew mi ku ko dégg ne eskay ndax fa mu bokk loolu lañ ko xamee fa mu bokk itam ñëpp loolu lañ ko fa xamee moom it sëñ bi ñuy jàll ci actualité njëkkee ko ci Ousmane Sonko Adji Sarr seen procès bi le 23 la jàppoon nañ ko la 16 ñu dikkoon nga am loo ñu wax ci Ousmane Sonko am loo ñu wax ci entourage Ousmane Sonko lu jàppaat ko la le 23 sëñ bi. waaw la may wax si Seydina Ousmane moom euh, la ma yàgg wax rek. waaw waaye nag euh, suñu borom dafa dogal ne. Mhm. Euh, mbir mu nekk day am ay sopp sopparndiku sopparndiku. ndax maanaam la ma waxoon moom ba tey sa laa nekk. Mhm. waaw dama leen waxoon ne leen am na sax kuñ jot a gis si waa këram yi bañ waxtaan ñun ak moom ba am jëflante yu jot a jëflante. ba am yu ñu tàmbali. Mm-hmm. waaw waaye li ma mën a wax ba wax la ko mooy eh, mbiri daal yombul te képp ku yaakaar na Ousmane Sonko fi mu ne. yombul de yombul de képp ku yaakaar ne yomb nax nga sa bopp. Mm. te eh, maanaam. nguur gi naruñu ko may jàmm. Eh, maanaam jàmm ji moom du am ci moom jamono ji te tamit mën na see mucc waaye kenn kenn mënu ko tee dem kaso. nga ni. xanaa Ousmane sonk kenn mënu koo dee dem kasa. xanaa si nekk nii ñu àggale lépp rek waaye bu dee suñ borom dogal na si diggante àggale wuñ ko kenn mënu ko dee dem kaso. la ilaha. comme ni ma ko waxee maa ngi ci la ma nekkoon ba léegi ndax euh, mbir mu nekk euh, da ngay tëju di def li ngay def waaye tamit nit ñi defee ñun am na ñu defee noona te wax dëgg yàlla waa kër mi ay jàmbaar lañ ndax. waa kër Ousmane Sonko. ndax am na si ñoo xam ne Ousmane Sonko jaral na leen lu ne wallaahi. man am na ku ñëw ne ku ñëw ku ñëw yàlla xam na ne ak alxuraan ak ajjuma gi ñu nekk am na ku ñëw jox ma kayitu ay kayitu pàkkam jas wallaahi ne ma sëñ bi damaa bëgg nga ñaanal usmaan Sonko ci loola billaahi wallaahi te kooku man wóor na ma ne moo ko Ousmane Sonko miinante wuñ mhm. kon ñooñu am na am nañ waaye ñi ko ñooñu ñooñu mel noonu si Ousmane Sonko ñoo bariwul ñi gën a siiw ñu baree baree bari mooy ñu nekk ci ci kanam ñi nga xam ne réew mi ñoru leen seen i bopp seen bopp ak seeni mbokk leen ñor. Mm-hmm. nit nag bu ko ay mbokkam ak boppam ñoree yow mi nga xam ne réew mi ak askan wi ñor yaay xoolaat sa bopp xamaat ni ngay taxawee xamaat tamit ni ngay jëflanteeg say say waa kër. te la ma waxoon ci Ousmane Deme moom lay wax tey. Mm-hmm. ñi ko war bu ñu dee junni juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk yëpp dañ koy war. moom Ousmane Sonko. gëmuñu ko Ousmane Sonko sénégalais yi ko ci gëm waaye ñu ko war gëmuñu ko laa ilaha illa allah Ousmane Sonko ko gëm waaye ñu ko ñu ko wër gëmuñu ko kon li ñuy wax foofu rek mooy mu gën a xoolaat boppam gën a ñagaat boppam te xam na lii tàmbaleegul sax ndax dina metti dina tàng dina yàgg wallaahi mais pour mu am ci ndam du yomb daal dama ne la dina metti dina tàng dina yàgg te gisuma lu koy tee metti gisuma lu koy tee tàng gisuma lu koy tee yàgg hmm? te luñ gën a dem li ñuy wax di gën a feeñ te maanaam. lu yàggul dara ay saltige dañoo génn fële ca eh, eh, Sigi Sigi Coor ne dañuy protéger Ousmane Sonko ne dañuy menacer sax ki nga xam ne moom suñu njiitu réew mi. waaw xam nga am njiit suñ borom mooy ànd ak moom ah, ndax eh, président Sall yaakaar naa bu doon président Sall kese nekk nit simple yaakaar naa ministre yu koy ministre bu nekk boo xëyee dem si sëriñ kon kenn waxatu ko ak xelam. tàggoon ak sagom wala mu faatu wala mu def leneen ak leneen. ak nguur bu ko suñ borom joxee nit suñ borom moo ko koy téel moo tax néew na sax ngay dégg président bu feebar bu yàgg wala xanaa mu nekk mag lool ndax suñ borom nguuram la jël jox ko doomu aadama. dëgg la moo koy aaral moo koy aaral boppam. ki nga xam ne dafa jël dara si dara jaam jox la kooku moo lay aaral sa moo koy aaral bopp. dëgg te maanaam euh, ba mu koy ba mu ko joxee tamit li mu la wax mooy dama koy rocc waxtu wi suñ borom di rocc nguur ga nag. yow yow ma nekk sa kaw doo ko yëg. Oh. kon la am solo mooy. saltige yeeg ñeneen ñu du saltige yi maanaam nañ gën a ñaan rek jàmm ji gën a am ñu gën a taxawu askanu Sénégal te jiital lépp lu ñu def Sénégal ndax ñun amuñu lu dul Sénégal xamuñu fu dul Sénégal te ñi ñu wër ñi bëgg a jël réew mi dañoo bëgg Sénégal nee nañ ñi yor réew mi nee nañ dañoo bëgg Sénégal kon yaakaar naa koo xam ne da bëgg Sénégal ak koo xam ne yaa yor Sénégal ba da bëgg koo liggéey yéen ñaar war ngeen ma def li gën daal mooy nañ jël seen intérêt politique ak seen intérêt bopp yi ak seen rànk ñiy teg fële te jiital askanu Sénégal ndax lamin mhm. jamono ji ñu toll dëkk bi mett na yàlla xam na ko. ñu baree baree bari boo génnee ci mbedd mi ñu baree bari dañ lay woo di la yalwaan te mhm. wallaahi buñ la yalwaan da ngay rus ndax da nga naan ñi yaakaaruma ko woon da nga yor sab téléphone as gor goo xam ne musoo koo xam si ñaan liggéey ak ak jaamu yàlla ak ak ak fa faj aajo nga ko xamee woon tey da woo téléphone di la ñaan. Lamine boroom kër yi bu ñu xëyee suba fajar teel la ñuy génn seen kër yi bala ñoo duggaat seen kër yi guddi jot mus danañ toog ñaari weer yoo xam ne duñu lekk seen ceebu kër. Mm-hmm. kon kooku askan wi ah, kon kooku réew mi métti na ci moom. Mm-hmm. da nga gis ñoo xam ne bu ñu añee si la ñu bu reer te reer ba sax du doy kon Lamine ñooñu askan wi métti na si ñoom. Mm-hmm. yow nag bu dee da nekk sa kër nekk si climatiseur yor sa 4x4 bu jër 80 millions. yor say soxna passeport diplomate leneen ak leneen la wër ba leneen la wër ba doo fay ndox doo kooku mettitu askan wi ak jàmbatu. da ngay koy dundee ci kaw askan wi. te ngay te askan wi dina jox loola mettitu askan wi ak jàmbatu askan wi kooku yaakaar doo ko yëg ndax la ngay gis nit ki moom euh, lu mu xiif xiif bu lekkee ba suur day jàpp ne ki ne xiifatul. Mm-hmm. lu mu su lu mu suur suur suur bu lekkee bu xiifee day jàpp ne ñëpp a xiif. Mm-hmm. loolu nag moo am ci ñu jiite moo am ñu nekk moo am sa ñu nekk suuf kon li ñuy wax mooy askan wi nañ bàyyi xel te xam ne ñun ñoo moom ñoo bokk Sénégal. ñoo moom Sénégal te ñooy defar Sénégal mhm. rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy ay ndaw mhm. loolu daal lañ amoon si lu ñu wax si diggante Sonko ak Macky waaye fi ma bëgg nga daaneele fa sëñ bi Mbacke la mooy ci diggante Adamo ak ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Ndack coow laa ngi tàmbali te wax dëgg yàlla yéen soxna nañ leen ngeen ngeen wax wàcce waat tension yi gis nga Lamine dafa am loo xam ne dafa jëmalutu kanam réew mhm. wax ci mu jëmalutu kanam réew doomu bu dee bu dee nit nga te yor sam xel la war sa diggante ak doomu aadama yi mooy nga suturaal nit ñi nga jox nit ñi cër. Mm-hmm. nga respecté leen nga xool sa diggante ak yàlla sa diggante ak ñoom. Mm-hmm. bu dee bu dee bu dee bu dee jigéen la na xam ne ëllëg day ami doom bu dee jigéen na xam ne ëllëg day ami doom. Mm-hmm. te day nekk yaay day nekki maam bu dee góor la na xam ne day ëllëg day ami doom day nekk papa day nekk maam. kon la war si ñoom ñaar suñ borom ni mu sàkkee guddeeg bëccëg suturaal lépp def ko si sutura si yëpp mu def ko si biir guddi nga xam ne bu ñu toogoon ba 4 heures du matin mu ne ma jékki-jékki nekk bëccëg musiba am mm-hmm. kon comme que suñu borom moo man loolu sàkkantuwaa ak ñun ñi nga xam ne ay simple jaam jaamaat jaamaat jaam lañ li ñu war suñu diggante doomu aadama yi mooy nañu sut nañu suturante ñu nëbbantale ay ayib nañu joxante cër mag jox rak mag mag mag jox rakk cër rakk jox mag cër mm-hmm. papa yërëm papa yërëm doom doom week papa loolu bu ñu ko defee. kenn mënuñoo te am jàmm. te dañuy te dañuy am jàmm. loolu la ñu amoon si diggante ñaar ñooñu nga xam nga wax léegi. waaye général Moussa Fall ak général bi malien bi parce que général Moussa Fall jamono jamono mën naa ne jamono ji jàmmi Sénégal ci loxoom la ne ndax moom moo naan armée bi def leen ñu def moom moo naan takk deer yi bàyyi leen itam ñu bàyyi te boobu ba léegi gis naa ni tegu tegu jëmuñ ci yoonu bàyyi ñoomi lamin Lamine gis nga muy général muy commandant muy inspecteur muy ku mën doon ci ñoom. Mm-hmm. nit ki bul yaakaar ne mukk di nga yee fitna mucc sa wallaahi même président Macky Sall ñoom ñëpp ñoo ci yem mm. képp koo xam ne di nga yaakaar yi fitna yi yeewu Sénégal ba lépp nga mucc ndax nga sa bopp mm. nañ xam ne képp koo xam ne yee nga fitna Sénégal wallaahi du la mucc doo si mucc doo si mucc sax njaboot duñ si mucc mm-hmm. kon bu bul xool say galon ak say garaat tax ngay def sa ngay ngay ngay defee sa doole mm-hmm. bu dee da jiite aw askan jiite ñoo xam ne ñoo yor doole dëkk ba la la war mooy lépp looy def bu ko defee bu ko defee fugg waxtaan ceeg say wër say jagañaale waxtaan ceeg say mbokk waxtaan ceeg say conseil mooy tax boo jumee ndax kilifa bu dee da boo jumee ñu bëri juum kon waroo di juum waroo di gaaw a jëf jëf bala ngaa jëf war ngaa waxtaan ak ñëpp ndax boo jumee ñëpp juum mm-hmm. kon pour général Moussa Fall li ñu koy wax moom na gën a yërë yërëm askanu Sénégal te xam ne lu mu am askanu Sénégal la mm-hmm. fi la jàngee fi la defee lépp fi la defee formation fi la defee lépp. Mhm. te euh, fi lañ ko formé fi lañ ko defee lu mu am Sénégal la ko am. Mhm. kon tey bu ñu demee ba jox ko doolee Sénégal la ko war mooy mu yërëm askanu Sénégal. te xam ne képp kum si tiire ak njabootam la tiire. Mhm. képp ku si ay ñooñam tiire seeni rakk lañ tiire. képp ku si ay ay njabootam seeni baay lañ tiire. kon la war mooy. bu dee moo yor doole Sénégal yor armi Sénégal la ko war mooy mu dalal mu def jàmm ci réew mi yokk yërmande ji lépp loo xam ne waxtaan du ko may. bu mu nangu dooleem dooleem may ko ko. ndax lépp lu fi def bis dina ñëw dina taxaw la koog doomu ay sénégalais bu ko sénégalais layoot ak moom dina ko layoo ak suñu borom. te yaakaar naa la mu dund du ko dundaat. nit nag boo demee ba tool ba nga toll si la nga dund doo ko dundaat la war mooy rafetal sa digganteeg suñu borom rafetal sa digganteeg nit ñi. loolu la ñu amoon si wax Moussa Moussa Fall. mi ngi noonu mbokki internet allo senegal Serigne Saliou ndomba gi jege si na waaye donte ko waxtaan nañ ci ba pare ndombak gi waaye comme ni ñu ko waxee rek ndombe gi moom du ñu du ñu sori mukk mm-hmm. waaw ndombe gi moom du ñu comme ni ko waxee rek bii daa mel am na borom ah bii waaw moom du taxaw mm-hmm. waaw weer dañu koy def ay commandes yoo xam ne eh, ku bëgg rek ñu jëflante xam naa daal li ñu si waroon wax lépp daal nit ñu bëri xam nañu ko daal waaw kon xam naa di ngeen di ngeen di ngeen a sori fi ngeen jógee dafa sori mm-hmm. te wax dëgg yàlla eh, coono bi mett na ñi ngi jéggalu ñëpp di baalu àq ñëpp bu ñu fi waxee li nga xam ne dañoo juum ñu ngi jéggalu sénégalais yi bu dee dañoo wax musiba tamit ñu ngi jéggal suñu bàyyi ak suñu yaay yi mm-hmm. te xam ne ñun dañuy wax rek loo xam ne njariñal Sénégal la mm-hmm. ak suñu suñu suñu moromi ndaw ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñun duñu xool mm-hmm. ñu jàngatee si ñun suñu li ñuy wax lépp luy njariñ ñu jànga rek si ñoom lépp loo xam ne safaan wa nag ñu bañ ñu ko xoolee bañ bañ ko jàngee si ñun te xam ne nit matul suñu borom rek moo mat képp koo xam ne yaa ngi wax di nga wax di ëral saw làmmiñ mm-hmm. kon daal loolu la ñu ñaan di jéggalu ñëpp di baalu ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Mbacke xam nga ni defoo lenn lu ñaaw waaye waxoo lu lenn lu ñaaw ndax kuñ ni ah, sëñ Sidi Muxtaar mooy sa baay mooy sa maam kuñ ni sëriñ Cheikh Mouhamad Lamine Baara mooy sa maam kuñ ni sëriñ Touba mooy sa maam nga nga nga tegu ci yoon wa nekk ca lañ nekkoon di julli di jaamu yàlla di jàngale waaye tamit di faj aajo jaam bu ñu waxee nga ni dama koy def ngir liggéeyal ko samay sama yoonu maam ji waaye dama koy def ngir jàmmoo ko yàlla ndax lépp luy teraanga am naa ko ba pare li buur yi dund dund lay dundee fi buur di tëdd laay tëdd waaye nag lii may def di ñaan yàlla faw ma def ko ndax faw ma am loo xamante naa ko yóbbu ëllëg yamal xiyaam teg ko ci samay loxoy maam ne ko lii laa liggéeyoon sa tool ya mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jëfal di leen jox di dajale ak seen benn émission ngeen jëf